alors mbokk internet yu wasaare ma gis ngeen ni ñoo ngi fii maanaam si géej gi fekk kii di Papa Sow a def face à la presse waaye lañ taxawal coach sur le top coach ñoo ngi lay nuyu. maa lay fay. maa yaa si jàmm. maa ngi si nan ngeen préparé seen bër. waaw kon préparé ñuy préparé rek euh, yeneen combat rek ah combat rek comme yeneen combat rek ñu ngi koy préparé bu baax. alors tey di combat yi da si des sax fu mu toll nii deux semaines euh, la la plupart dañuy wax ne fu mu toll nii kii di Papa Sow am na avantage maanaam si combat bi mais bu yàggee loolu loolu du avantage am. waaw mais ku nekk sa gis-gis ak ku nekk sa xalaat ñun ñu liggéey xam nañ ko bu yàggee mu gaaw loolu yëpp yàlla moo ko xama ah. loolu ku nekk sa gis li question bi ma posé nii ku nekk sa gis-gis ngay wax ne avantage li wala non non non ku nekk sa xalaat ngay wax parce que sport dañuy def dañuy dem uti kii uti. ñun lu ñuy ñaan yàlla lu ñu préparé ñu xam nañ ko ñu ngi tëju di liggéey moom te mu ñu tëju di liggéey su boobaa dañuy ñëw confirmer lu ñu liggéey ñun. mais pour toll nii Papa Sow bu mu gëjee am victoire yàgg na lool wala bu mu gëjee am euh, combat tamit yàgg na lool est ce que jàppoon ni loolu mun na am inconvénient ci combat bi surtout muy bëre benn xale. waaye sport la rek. Balla Bèye ak beneen mbërëx mbër toog na lu yàgg gëj a ñëw yàlla may ko ndam lépp ci suñu mbirum borom la rek loolu du si dara. mais est ce que yéen koy sóoraale maanaam parce que. waaw xam nga bu ñuy dem dañuy sóor victoire yi dañuy sóor dañuy sóor victoire suñu victoire dañuy sóor sóor ñu lenn lu suñu victoire si kàttan suñu borom loolu dañuy sóor te loolu dañuy liggéey pour ñaan yàlla yàlla ma ñu ndam. ñu bëri la ñuy xaat ne bee passé combat bi demoon na bay am yàlla dogal amul à cause du blessure boo xam ne Papa Sow amoon na ko ñu bëri jàpp ne wamatul Papa Sow bu indee loolu ne kii kat met boobu mën na faj question de revanche du baax si moom. non non non non loolu ay wax la rek loolu ay wax la rek ay wax la rek li li ñu liggéey xam nañ ko fi mu ne dañuy ñaan yàlla nekk si combat bi yàlla may ñu ndam ñaanal Siteu yàlla may ko ndam mu bañ a blessé mu bañ a def dara loolu daal dañ koy ñaanal fi mu ne. question lay wax ñaan yàlla yàlla may ma ndam ñëw bañ a violence bañ a xeex bañ a xuloo def fair lay que le maire gagne.